non parrain jotewuñ dara yow maa ngi moom xam nga ne mooy loolu saa day sóob rek. kon maa benn booy mu koy tegal ne na gis na leen si mbedd mi ngeen werante werante bu métti. lak la faral moo faral Modou Lo dinañ werante. ah loolu Lo nga faraloon. ii dem bëre na bëre bi de. la dafa jox waa ji bopp. waa ji mënul ci bopp bi dara. yaa ngi woon esaat. kan man Modou Lo maa àndoon ak moom. Hmm. waay man de gàll laa kal. yow ci télé bi pour ñu ko xoolal ci télé bi mën la ma ne woon. bi. Baye Fall baa ngi. <laughs> parce que boo jege jege te butéel bu sonn. ah butéelu lag bi la booy teel a nekk bul wax ak man ah. dégg nga. oui ah. sa problème. man démb damaa mbër bi butéel bi dernière butéel bi def naa lu ma mën. butéel bi maa ngi ko jëlee ba maa ko Kolibanta. yow yaa doon sangal la dëgg. waaw maa ngi ko jëlee ba maa ko Kolibanta. mais dem da ngeen a gis lu leen jaaxal nag gaañ. xam nga lii ku ma ko jox. Hmm. daaw de mbow. tam nekk Jantikunda. moo ma jox lii. dëgg la ma dem jëli ji butéel bi def lu nekk ñëw ndekete yoo mbër bi. fóonu waxoon naa la viril man damaa sax ah mais jaayante na ko de. xool xam nga lan mooy problème bi. Hmm. la de guerre bu subee ko ba taxaw. da nga naan tey dem doole kese la moom. waaw yow ban doole loolu doole la mbër nit boo ko gis nga. booy mbër bu la may ay bu doon balla kay. barki yàlla ay bu doon dana am du yàgg. Balla Gaye xam nga lu tax ma bëgg ko. Balla Gaye combat am du mu jàpp la daan la. waaw ah, ah, waaw bëre signature bi nit ñi dëkk amateur yi. alors nit ñi dëkk seen xaalis. yàq yaa ngi foofu gannaaw. waaw xoolal maa ngi nii di ñëw cinq minutes. man damaa ruus. Modou Lo waaw non ñëwal ba si organisateur bi. Ndaw. ba pare di ko dóor di ko engagé lak di. waaw après da nga xam organisateur bi kii la nekk gauche. waaw naa la nga fii lan laay waxati ci lak. gauche la nekk. man kay saa li muy communiqué bëri na nag. day wax téléphone ba ba moom duñu dégg. waaw maa ngi nii di ñëw. lak lak lu may waxati lak xam nga lan laay wax ci hmm. moom. Hmm. jël ko bako dootuma ko faralati. biye juróomi dërëm biye non non wuy ma bul mais lag mu ngi góorgóorlu day amaat combat am ndam. kan kan mooy dëggalal lak moo fi daaneel daanaka la fi yëgani. yow yëgani boo góorgóorloo jamono bi ko lag di daan nga daan. man maa ko ba xam nga la laa bëgg. Mm. man mbër dama bëgg nga nekk der mel wala Sadio nekk guerrier mm-hmm. ah mais yow. ñu nekk ay guerrier. man bala Balla Gaye may contact ak moom. waaw xam ne kii vainqueur la pour ma daan ko day metti yow ak Balla Gaye ngeen di contact. Balla Gaye de Balla Gaye combat man lay. contact man naa la nga mbot ko quatre fois. Balla Gaye man yow yaa ko fekk. la dama ko jox kele la ma ko jox kele nee naa ko porte bi nga am ngeen ko dem ba wër ko ngeen pour man da koy yëkkati sànni ko interdit waaye interdit ñëpp génn nañ def nii seen loxo yi. yow yaa leen wax loolu. waaw ñëpp boo ko ba mu ko wëree noonu. ñëpp génn nañ def nii seen loxo. waaw da koy buddi rek xalab ko. xalab ko gars yi capté ko. nekkite yoo banaa. yow xoolal Modou Lo. promoteur bi daa benn instant léegi loo bëgg yow da ngaa bëgg a décourager dem ci. non bana bana pour la da ngeen de. waaw ma ko faral. Modou Lo benn instant nga kaa faral ah. non man li ma wax moom damaa damaa werante werante werante werante werante man werante na ba su ma fii xar dama ko ñawaat waaw hmm. ah, werante naa gannaaw ba fii xar. ma demaat ma demaat ñëwaat ko. ñëwaat ñu werante te taxul ma du matin laa dugg stade. tànnal ko bu ñëwee fu ñuy teg ci mu kaay ñu ñëw foofu Lac de Guiers Guédiawaye gépp nekk ci ginnaaw waaye kenn desul. non dem moom comme coupe du monde. stade presse dal la def di jooy. kan Lac bu ñeme naa bañ a jooy. di jooy xam nga 5 heures du nga fa dugg moom 5 heures du matin la fa génnaat def na fa 24 heures. léegi léegi budeel bi di jooy xam nga budeel bi kii la. léegi budeel bi xam naa fa ma koy jël dama koy jël xam nga dem delloo ko daal de mbaw sama jour bi mu koy sangoo xam comme moom joor la ma jox ah, ko moom ak joor dañoo bokk ay cumbukaay. waaw waaw léegi kii sama benn joor la mais yow démb ah, te dara jaaxalu ma. Hmm. waaw France bi nag. dagaay mbay maam yooyu. <laughs> ay ñoom de ñoom de dañoo otesu. ñoo dem ñooy ren xaw ma ne ba ma xamee France ñoo leen colonisé par drapeau. Hmm. ñoo leen sponsorisé. moo tax ñoom ñu sol ko sol. non démb ODCAV bi lañ taxaw kan ODCAV bi lañ taxaw. waaw yow ñoom bu la balaa sol ñoom ñëpp ñu ñëw décret ba ñuy France di sponsorisé seen drapeau bi kese la ñuy jox mënoon ñoo sol vert zone rouge sax mais bële balaa rouge. non dañ am ko teewoo loolu. non non loolu bële blanc rouge drapeau kii la genga ah, drapeau genga la. Hmm. lenn daal laa leen di wax. Hmm. bis ni ki day. gas leen sa suuf. Pape Abdou am na déception bu ko métti. ndax lan parce que li mu xalaate woon lambam gi mel. mu ñu jàppoon ne. Sénégal kenn kontaanut su ma doon faral Modou Lo. Hmm. du ma yuuxu xam nga lu tax du ma yuuxu. mooy nit ñi jël lañ doon xaar. waaw xam nga lu ma yuuxu. loolu du ndam te leer na ma neexul mbër bi Modou Lo su ko doon faral man mm. du ma yuuxu parce que loolu yuuxu ko gàcce la yow xaar mu teg ko suuf quoi wala mu dammate ko dóor mu dañ doon xalaat mu daan ko mais la dëgër loolu la waxoon mais sawaay sawaay da di ko ko dee quoi naan ko yaayu xool jàpp ci rek bu ma daan nañ mat si nii looloo tax looloo tax Modou Lo bàyyi mu man de ñi ma xam ñëpp ñi ma xam ñëpp ñu doon faral la dëgër ñëpp ñëpp bàyyi nañ ko bàyyi nañ ko waaye man de bàyyi naa ko léegi moom booy maa ngi ci bi ay Balla Gaye ak ak dof moom du xaar Balla du xaar la jeex na bu yàgg Balla bu daan baa mu daan la ma wax la benn affaire Balla ba muy daan Yékini combat boobu dañoo toog di contact Balla nga yeewu quatre heures du matin di jooy rongo ji di tuur jooy ma yee ko ma ne ko Balla lan la xam nga nelaw di jooy Balla Gaye di jooy ma yee ko ma ne ko Balla lay jooy oh. xam nga mu ne man gaynde laa ma ne ko loolu waxatuñ ko mu ne man guerrier laa moom la doon jooy waaw ah, mu ne ma kii dinaa ko daan ñaari jël ci benn takkusaan loolu amul man xanaa xamoo premier jël bi maa ko waxoon Balla. Hmm. dañoo contact ma daanee ko noonu. ma ne ko sa appui bi nga teg koy changé mu quatre appui. appui bi bañ mu ne nañ continuer waat arbitre yi tamit nañ dimbali ngir yàlla. Hmm. ay mbër yu ñu fay ay cent cinquante millions. mais temps bi lañu war a dindi ji. temps amul temps ay mbër yu ñu fay cent cinquante millions. war a bëre ba lës. war a bëre ba gannaawaati suba. waay ñu ñëw foofu bëre fa doorante ñeenti coup ñu yëkkati kii. non xam nga la dëgër yi ñu ne yi dañoo faral. Modou Lo. te am na loo xamante ne moo am ba des mooy. Mhm. dèjà stade amitié waxtaan naa si kenn dooru ko tëgg làmb lamb mooy jeex. lan làmb kenn dooru ko fi tëgg dañuy tëgg mbër yu ndaw yi bàyyi ponkali ponkali da nga leen di fay xaalis bu bëri ñu ñëw dañuy bañ man daal mbër. dañuy toile du quoi engagement doon mbër parce que gars yi ay yembar lañ ko. keroog troisième combat maa ko bëri. bitéel bi laa doon sotteeku. nan nga mën indee làkk ba pare bëri troisième loolu mënul nekk man maa daan ñëw yaay. wulli maa ko dóor dóor yu métti yooyu. wulli hmm. wulli wulli wulli wulli waat. Hmm. maa ko dóor dóor yu métti. da leen daal. dèjà gars ak lay dox. sama combat cek. Hmm. lan la. lan la sa sa dënn ah, doon xool ni mu kii. contact contact. keroog laa ba jeex quoi champion gi nii léegi désormais écurie bu bees laay créé. tuddee ko nan. Maris Suuf. ma Maris Suuf. écurie Maris. non non nañ ko nañ ko tuddee tëppandam ma. ah écurie tëppandam ma. écurie tëppandam ma nga xamante ne wax nga dëgg dèjà am naa fal sama entraîneur bi ngi hmm. jigéen soor. Hmm. tudd Mbaye Togala. bu hmm. may préparé. te ñun ñun buñ fentee suñuy suñuy suñuy ay Ama Baldé dañuy wàcc ay bër ay bër. ñu dem dee bu daax tëb daax. ñu fekk la lii bër non kii moo doon fekkee noonu nu mu tuddati naar sokaas bi keroog bëre bi woon Thiès ak ceebu jën ak ceebu jën bi wuy ma fekk la anam mbër da ngay bàqu waaw di mel ni suñu mbër ba sax taay den teg kii gi teg teg taay den la doon bàqu dégg dégg dégg ra cel ba jax mbër da ngay bàqu saay saay am caay caay quoi waaw ndëb dëb ra dëb ra xëti gën dëb daa ra loolu mooy baaxu mbër mais ñëw kenn xamul looy ceebu jën keroog naaru sokaay ceebu jën la doon fecc si te ñëw si te génnee na wax bu bees waay démb ma ko lii nu mu tudd mu ne xaw ma ndorke ndorke ndang daa fecc ñu ne ko bii may fecc man mu ne bii may ndarki ndang xam nga fecc da ngay dégg àll paa démb laama gi dara neexu ci borom àll paa ya kin dang ran gin tara tata kin dang ci jeex na boo doonoon mbër barki eh, eh. naa ci yow moo la lu ñuy contacté moom li la ñuy contacté da ngeen li contact la yow tuuti nga daanu sama kaw booy bu ndaw bi moo la tufel ngay dem non bëgg nekk làmb sax moom moo ko tey daanal boppam hmm. dafa léegi hmm. jeex na entraîneur boxe la mbëru se xaaj yëpp maa leen yoon bokk mais am na mbër yoo xamante ne mbër daal mbër bu rafet mbër mbër sax du rafet jantal di jantal mbër da nga war a ñaaw mel ni dàngin mel ni double moteur ah ñaaw na bëri na waaw xam nga mbër da ngay ñaaw ñëw ñu xam ne kii mbër la hmm. mais nga ñëw foofu am nga di ah, cuuneel yooyu waaw te lu ma gën a jaaxal ñoom ñaar dañoo tàngal ay ndox ba ñuy ñëw kan dafa seddoon nag de stade dafa sedd dafa sedd de digg stade si ngelaw loolu yow géej waay robinet yëpp a tëj démb ndox yëpp ñëpp a jël tàngal ndox sottil ko yokk ko confiance na kan ñeexu ah man de man de man man moo nekkoon sama mbër waaye wax dëgg yàlla dañ ko jox man man man man soo nekkee xaritu Balla Gaye sax dama lay faral soo xamee Balla Gaye ni soo nee Balla Gaye daal ndax Balla champion la. non Balla moom benn affaire. combat am du yàgg quoi. bi muy judd bi muy judd am na am na lu lu amoon on ci ci ci ci côté. gërëyee la non moom gërëyee du yàgg. booy Balla kooku moom c'est un lion. booy lion da ngay nekk lion. mais Lac de Guiers lion la de dafa. dafa tase ku ko mën nag. du def agression quoi. da nga gedd turam léegi sax. waaw waxuma turam xaw sax. Hmm. xaw ma sax kuy kooku. yow noonu ngay faralee mbër. man hmm. xam nga su ma la faralee waxuma duñ la daan de. mais buñ lay hmm. daan nañ la daan si biir ñi. daan si biir ñi de mais sama biteel bii.

patin waaw saa yi mujj gi dem ba di raay la naan ko bébé doo bëri lu ma gën a metti nan ngay bëri mbër dóorante ngeen dem ba ci ginnaaw ko koy raay mu la bàyyi ma <laughs> ah, loolu mooy lan boo <laughs> koy raayee da nga koy dóor man nii laa xola ba ba ñuy contact fe géejawaay jox box yi nii laa ko doon def nii nii man na ko taxawal dafa gàtt nii laa ko doon def mu dee yow tamit bu dóoree lak day a am poñ tuuti mais gars yi mbër daal mooy loolu lu yàlla xam doy na man désormais bis ñu ngi tey. Mm. bana bul nag bul bàyyi. gars la soxla damay toxu yow ak lu làmb ñoo la soxla damay toxu damay. fooy dem fan ah waaw bëgg dem tëgg Tunisie quoi dafa benn 4 mois. Tunisie waaw mm. Tunisie laay dem. Tunisie Tunisie day dem coupe du monde dama dem pour defar leen préparateur physique. Mm. Tunisie waaw. temps yi coach nga. man entrepreneur mais boo ko demee doo làkkati olof de ay yatta xaddam yaa xas sarxal si man man man man jaay naa ñaari booy sama ñaari booy baan naa. kana nuñ nuñ tudd baan naa ak makan. Hmm. ay booy ay jour rek jaay naa leen te jaay naa leen fii Pout. waaw hmm. ah, jaay naa leen benn équipe première division Pout. fële ñuy joué. man moom man moom daañu ma. man man maa doon góolu Atlético ba muy jël Ligue des Champions ba muy final Ligue des Champions ak Real. waaw ah, maa doon góolu. maa góolu yaa doon man man yow yaa doon lépp la man de Alioune la tam daa mel ni yaa ko jaay de. kan Alioune Ndeye la tam nekk ñaa coog. tamit doon football. kooku du feccikat. ah Alioune Ndeye la kooku du joueur. feccikat la woon kooku toj na Maroc. Eh, feccikat la woon. ah Alioune Ndeye la moom demee Maroc. Ah. da doon fecc foofu. Paco nag. kan Paco bu ñaa coog. danse batterie la doon def. non yow baal li nga wax waaye. gauche kan gauche. gauche non non man benn gauche laa jaay muy Fadiga. Ah. Hmm. léegi daal booy. lépp loo leen dégg ni da koy ut woo leen ngeen ne patin kaay defaral ñu ko ma ñëw defar ko léegi. si yooyu laay dox. waaw yow dundal yow kay amul problème am nga am nga benn mbër bu ma la bëgg boole. kooku dafa bëgg dugg ci làmb te yow rek la yaakaar. Mm-hmm. Miss Ba mm-hmm. Miss Ba mën naa bëri boo ko mu défilé ji. turu moom du ma ko yor di yàq sama def dafa rafet nag boo ko mu gisee mbër du rafet. waaw waaw mbër rafet. mbër hmm. mel ni double moteur. mais ñëw def sa bopp bi ay tere. ay v ay v mbër da ngay ñëw. ñaaw ñuul mbër da ngay ñëw. ñaaw nga xam ne bu ñaawaay doon jaay milliardaire nga ñëw sax indi vainqueur comme daru mbër. Hmm. comme daru mbër. comme yow ni nga def nii yow. boo doon mbër waaw xoolal sama café gi foofu ñoom Saliou. boo yooyu ay mbër lañ fii café gi sama koñ. Hmm. xaaj bi yëpp ay mbër la man mbëru grand bi maa leen jox kañ nga dëkk café gi nag. ah kañ nga dëkk grand bi sama koñ. dëkkoo woon café gi de kañ nga dëkk. non fa lay fréquenté mbër la baaba. fa laa koy romb nee na mécanique mécanique bi doxul. doxul léegi mu dem boppam mbër. waaw hmm. ah, dem waay. da ngay dem ni. kay moom bul na fasaale fasaale gi moom. mais yóbbaale sa bidon bi ah. voilà fii am na benn gàllaaj bu ma taxoon ci kaw fii sax. sëf la woon xaaral ma yëg fekk. ci garab gi waaw. koo ci koo ci eh, sëfoon Lac de Guiers. ma ku baax saa yi li nga koy yàq yëpp nag tey bul jaar géej waaye de lak man moytul daan sama kaw de wala leen tasee da nga koy gaañ. moytul daan sama kaw de. moytul daan sama kaw rek. Patin wàccal garab baa ngi waaj a dem. Hop Opo mga kayo